ak ku mën ak ku mën a jottali gouvernement ak ku mën a doon danaa leen waxee ne leen ne lii nga xam ne ni moom la Mouhamed Niang di liggéey ci bon ca dëgg-dëgg jaadu na jaadu na te jaadu na te war la gouvernement bi war na koo xam war na cee gën a teg loxaam war na cee gën a dugal loxaam war na leen gën a jàppale ndax lu mat ñaari junniy xale nga yor seenum jàng yor seenub yar yor seenub dund yor seenub faj di leen ci lépp te loolu soo ko séddale woon ci école yi ñaata école lañ war a nekk ñaata classe lañ war a tabax ñooñu leen di jàngal lan la leen lan la leen di fay soo ko xaymaa ci école yi lan la war a toll est-ce que te boobaa it résultat yi Mouhamed joxe certificat yi mu am 100 pour cent bërëb yi mu am 100 pour cent yi mu am 100 pour cent andil ñu ña téeméeri ak juróom xaw ma juróom-ñaar. loolu suñ ko xayma woon valeur bi nan la toll kon nag ma ngi sant président waaye préfet suñu sañoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg maanaa daara ama safiloo bu bun danañ leen gën a jàppale ndax tamit nag te liy dëgg jàngal xale yi yar leen teg leen ci aw yoon loolu war garu état la xam ne bi képp ku ci nekk di ci liggéey kenn ku nekk da ngay dimbale état ci waru garab kon Mouhamed Niang lim bi suñ leen bàyyi woon ci mbedd dakaar yi ñuy wëndeelu ak a toji kaar ñuy wëndeelu ak a kon loolu ay problème ak ay jafe-jafe rek lay indi nga téye leen ci barab di dundal di yar di toppatoo di taxaw di jàngal waaye nga jox nga génnee jox société bi ne leen jëriñoo leen la maanaam loolu dëgg dëgg ña ngi ñaan gouvernement bi war na cee gën a dugal loxam nekk na cent cinquante personnes cent cinquante personnes yoo xam ne kenn ku nekk weer wu nekk ñu jox la lay sa ak nam ware loolu lu rëy la loolu lu rëy la loolu état war na koo xam waaye tamit la leen di faj état war naa mën a su andiwul médecin médecin yi pour daara ji moo mu andi ab infirmier ngir daara ji wàllum njàng mi tamit nga xam ne dañoo boole njàng mépp njàngum diine franco arabe li école li xale yi di jàng ci école yépp ñu boole ko di ci jàng boole koog seen njàngum diine di am résultat yi daara ji am na ay njabootam yoo xam ne nii ñii ñu ngi école normale ñii ñu ngi liggéey ci gouvernement bi nekk ay fonctionnaire ñii di ay professeur ñu nekk ay instituteur jaatu na tamit ñu ngi ñaan gouvernement bi ñooñu na ci yëkkati jox Mouhamed ña ngi jëlatu leen ci ba daara ji ñu yor ñu ñu jàppale Mouhamed ci liggéey bi dama ne foore bi mënta def mënta def def lu ëpp loolu wala lu gën lool te waat naa ko ci yàlla ne xawma kan lay doon xaw ma Macky Sall lay doon xaw ma président bu mu mën doon waaye waat billaahi wallaahi ko koo ko jëkk a def sa aaju dana faju àddina ak àllaaxira liy wax ji dañ ko wax Mohamed xajatul fii Mohamed xajatul fii fii la war a dem fii la war a dem te su fi demee lii garab garab ak ci aju woon lu ñu ci foore bi dana bokk àndaal dundale ko fii la war a jëm fii la war a dem loolu nag ña ngi koy jottali ñëpp ku mën a jottali kenn ku nekk na nga ko jottali kam ko mën a jottali nun loolu lañ wax loolu lañ gëm loolu lañ bëgg